notre coach Mass hélas euh, matin Mass ñu ngi lay nuyu euh, comme de temps en temps da nga ñuy expliquer jàngal ñu bu ko defee ñu dem directement Olympique Club pour voir pour xool exercice bi vélo euh, am na nu nu koy tuddee defe naa TPRMP wala RMB RVM BRMV <laughs> wala tëpp na ma wala dëbb <laughs> dis-moi tout. salaamaaleykum Pape Cheikh waaw ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal yëpp waaw cours RPM la ñu leen indil tey. RPM. waaw RPM wala nga tuddee ko révolution par minute. révolution par minute boo tuddee spinning. d'accord mais fële comme ñu ngi lay ay programme milsi la yor fële. Mhm. donc ko chorégraphier chaque 3 mois ñu changé chorégraphie bi indi yeneen musique indi ay dugal ci yeneen mouvement yu bees. donc mu tuddee ko révolution par minute. mooy nombre de tours yi nga xam ni. moom ngay def sa vélo super. donc euh, vélo am solo am njëriñ xam naa dinañ ci dikkaat léegi léegi. Mhm. ñu bàyyi ngeen seetaan élément bi. Euh, ñu ngi ko tourné Olympic Club ak euh, Mauritanie donc après ça ñu wax euh, njëriñu vélo incha allah. allez Mass. alors Christian Safia. bienvenue à l'Olympique de Dakar bonjour l'équipe de Diablène tey dañuy indi pour être benn pour amul fenn pour le saut vélo avec des résistances et autres. tout d'abord on va d'abord respecter les principes d'une bonne séance d'entraînement on est chez Ensuite juste un morceau pour travailler donc la et l'instrument instrument C'est bon Donc si vous êtes prêts, on peut démarrer. Allez sur par rapport à votre taille. Mes résultats de base, et c'est parti. DJ Philo, que bu ngeen koy seetaan da ngeen di foog ñi dañuy foo comme a dit Alfie tantôt wala bu ngeen gisee nit di ko def da ngeen di foog ñu foo parce que souvent vélo xale da koy foowee et pourtant ça beaucoup d'importance euh, euh, ci yaram euh, coach

danga nga yokk résistance mel ni ku nekk ci montagne. Ah. léegi des bu fekkee da toog mel ni ku nekk ci descente nga wàññi ko. Ah. donc loolu mooy différence am ak vélo yi nga xamante ne si euh, ay vélo mobile lañ. fixe standard mooy loolu mooy kii euh, am na solo trop trop trop. cours bi cours boo xam ne euh, 45 minutes lay duré. Uh-huh. vraiment endurance cardiovasculaire la. donc dina la permettre nga améliorer sa condition physique. Uh-huh. te ñi xamul mooy condition physique dañ koy améliorer ba ba 500 mag mën na ko def comme xale. mën na ko def dafa à boo gisee coach bi euh, day day guider ñi nga xam ne ay nouveau lañ. Mm-hmm. wala ñi nga xam ne ay mag lañ bu ñëwee à chaque joxe option. ne mm-hmm. leen def leen lii yem leen fii donc euh, voilà ñi nga xam ne si ñoom yàgg nañ ko def mu ne ñu topp coach bi donc musique bu entraînante la donc mi euh, cours la boo xam ni y a boo ñëwee rek lay motiver ba da ngay dépasser limite doo ko yëg. waaw moo tax ma ni njëriñ ci euh, ci Sénégal c'est extraordinaire. merci beaucoup léegi donc amuñu comme léegi euh, ñi nga xam ne amuñu vélo yooyu mu amuñu jot dem def ay tour fu yëg ci mamel ak yooyu. ñu defal leen ko arrêté ko par rapport à donc du lépp ko ci ci salle bi. lépp da nga koy def yi wàcc euh, te te te doo génn salle bi. donc ñu matérialiser ko par résistance boo xam mooy nekk ci ci vélo bi. voilà bu fekkee am ngeen moyen